nañ leen wala lu donc day bokk ci euh, li xam ne moom mooy waxtaanu waxtaanu tay bi ñu jël sëñ Saliou asalaamaaleykum salaamaaleykum doyen. waaw doyen ñu ngi lay nuyu tàng na nag. man non waa Sén waa Sénégal. Ah, ah, maa bañ maa bañ maa bañ maa bañ Sénégal TV fa laay liggéey. Sénégal 7 fa laay liggéey waaw. Ah, ñaari kàddu rek war a ndaw ñu fi ñëw tey. waaw. di woote li nga xam ne moom mooy libération des collectivités. waaw. waaw d' accord man ak mbégte laa fi ñëwee parce que man mii di wax ak yéen je suis un ancien détenu donc man dama ci bokk. dama ci bokk donc lii man ñi waroon woote. ci laa mbokk pour wax ni rek njiitu réew bi xale yi nga xamante ne manifestant yi nga xamante ne ñu ngi ci prison yi nañ la leen bàyyi parce que liñ leen fa yóbbu arbitraire kese la du leneen manifestation su amee il est du rôle de l'État d'encadrer la manifestation mais su fekkente ne yow constitution moo la may loolu nga def déclaration dañu manifestation ñu bañal la ko am nga droit nga foqati ko il est vrai que souvent on li ñuy wax ne way ay problème de sécurité et cetera mais ñi nga xamante ne ñoom ñoo yore kaaraange gi di surveiller endroit yi nga xamante ne nit ñi fan la ñu war a manifester ñoom ñoo war a dem di encadrer manifestation yi manifestation chaque fois su amee ñu encadrer ko dara du fa am. mais soo ko bëggee xañ Sénégalais yi nag ñoom ñu bañ loolu moo indi li nga xamante moo am donc donc manifestation manifestant yi ñu nekk ci prison yi encore une fois ñi des ci prison yi na leen leen bàyyi il est temps ñu bàyyi leen ñu dem parce que seen njaboot di elles ont assez souffert elles ont assez souffert man xam naa ci dara parce que j'étais en prison nañ leen leen bàyyi waaw. dañ ko bay téelu yàgg rek euh, ah, ah, ñëw ni ñu daal di euh, yi détenus politiques yi nga xam ne euh, jamono ji am ñu des les forces commando les forces spéciales ñenn ji nekk li nga xam ne moom mooy euh, seen yaay yi donc ñu gis dama dama taxaw si digg bi nga jëlal ma ñi nga xam ne ñoo fi nekk encore une fois ñu nekk également donc donc jëlal demal Zilaar di lay char def jaamu gis leader yi nga xam ne ñoo fi nekk ay defe yaayu ndaw ñi nga xam ne dañ leen jàpp ñu ngi kaso ba tey donc li yëpp mooy moom moo dajale askanu senegal pour ñu euh, daal di bàyyee ndiku li nga xam ne moom mooy ndaw ñi force commando force spéciale des terroristes réew mi nga xam ne dañuy wax ne dañuy bàyyi euh, ndaw ñi euh, réew mi nga xam ne dañuy wax ne jàmm lañ bëgg teewul ba léegi ñi nga xam ne moom ndaw ñu ngi prison ba léegi Boubacar Ndiaye euh, en prison Boubacar Ndiaye euh, ki nga xam ne également mooy village Diatta moom tamit génn prison euh, am na ñeneen tamit ñu ngi dégg ne également bàyyi ndekku nañ leen waaye xam ngeen ne Fadilou Keita également bàyyi nañ ko Waly Waly Diouf Bodian également moom euh, daat nañ koy daat nañ koy daat nañ koy baax dara dara ñu la ñu laaj ñaari question rek moom day daw média mais grand nga may ñu ko rek yaa ngi entré Sénégal set mënoon nga eh, waaw waaw waaw waaw mais d'accord ñu ngi fii tey daje pour euh, au nom du collectif des famille des détenus politiques parce que comme ni nga xamee il y a beaucoup de détenus politique euh, dans les 37 prisons du Sénégal, pas qu'à Dakar, mais également au niveau de, de la, des il y a des vagues de Mais à ce jour, euh, euh, on, je nombre de oui, il y a 447 plus 41 détenus libérés la MAC Il y a également les quatre d'hier de Rebus. Donc on est à suivre là. Mais globalement, ce remarque, c'est que c'est surtout à Dakar qu'on note des libérations. C'est pourquoi d'ailleurs, au niveau de la prison de Ziguinchor, il y a eu des remous. Les prisonniers ont mené une grève de la faim pour euh, contre les longues détentions préventives. Et après, on en a libéré 10. Mais le rythme est lent et en tant donc, euh, des pour euh, encore un cri Euh, donc euh, tendant à exiger effectivement la libération euh, sans exception et systématique de tous les otages politiques, que l'on ouvre les, les, prisons et que donc nos enfants, nos parents donc rentrent à la maison. par rapport aux forces commando, forces spéciales, jusqu'à présent, ils sont en prison. Non mais ça c'est des foutaises quoi. Je pense que ça c'est de, de, de, la diffamation orchestrée par le régime liberticide et démocraticide de, de Macky Sall. pour suffier, n'est-ce pas, donc ces séquestrations. C'est pourquoi d'ailleurs euh, euh, on comprend les railleries de certains qui disent que oui, mais euh, c'est des, terroristes, c'est des forces spéciales qu'on a libérées en pleine nuit euh, et qu'on l'a lâché donc, dans le de Dakar, pour dire que les Sénégalais ne sont pas dupes et que derrière on ne peut plus de forces spéciales ou de euh, terroristes. Ce sont des détenus politiques et qui vont incessamment tous être mu nekkoon Daouda Daouda Gueye bu FRAPP mu ay euh, kàddoom si li nga xam ne moom mooy moom mooy euh, am solo loolu ñu def lu mel. même Fada di littoral réew mi kaw a total ñaari at ñëpp doyal ci ko àttanul collectivité locale nu muy téye Sénégal sagaru président apprenti góor yi mbaa du bàyyi tat ci toppoon tengoom ñooy jiite réew mi. ko na nga def Assane mu mel ni moom tamit ah, doomam mu ci kaso bi maa ngi nekk ci kanam papa ñu ngi lay nuyu waaw Cissé maa ngi lay fay sa doom ba léegi mu ci kaso gi Assane ba léegi mu ngi ci kaso bi Assane ah, fan la ñu tudd ak sant bi mu ngi tudd Assane Dramé euh, Petit Mbao village 152 foofu la dëkk cité Adja Maram Diop ana yéen kàddu nga bëgg a yëkkati ginnaaw ba ngeen regroupé fii nii yéen famille de politique bon kàddu yi ma bëgg a fii c'est très Sall actuellement nii dafa ne woon dafay bàyyi xale yëpp ñu commencé yi am yaakaar muy bàyyi par portion di bàyyi par portion ba yàgg mu téyewaat loxoom ñu waxaat mu reveniraat ci beneen discours boo xam ne ne yaakaar ñu ko woon am affaire amnistie nag moom kenn waxu ko parce que amnistie ñi dee mënuñ bàyyi noonu les blessés mënuñ bàyyi noonu léegi nag xale yi nga xam ne daf leen doon bàyyi mu jékki-jékki arrêté ko mais xale yi ci kaso bi tey lañ gën a am motivation gis nga tey bu bàyyoon xale yi ci kaso bi ba beneen chef d'état élection yi jaar yoon ñu def ko euh, ci mois de mars bi ñu ko war a def sax moo gënal xale yi ba keneen ñëw génne leen ko moom di génne parce que moom dafa tooñ xale yi téye leen ci kaso bi pendant un an pendant deux ans pendant six mois. sa doom ñaar at la fa am. Assane def na fa 20 mois. 20 mois 20 mois. actuellement mu ngi ci de détention yoo xam ne ni kenn waxu la yaa def kenn waxu la nga téye benn nit entre les quatre moom ak ay moromam dul jeex nag du kenn du ñaar du ñett ñeent dañu bari. un an huit huit jours mois. un an mois ça fait mois ma nga ko fa rëbës loolu dafa yàgg xale boo leen àtte woon tëj leen sax ñu xam ne tëj nga leen defuñu dara nga bàyyi leen ñu dem yow atte woo leen firi woo leen jàppale tëj ci kaso bi noonu bàyyi fa noonu xale dañu sonn kaso bi dafa métti. njàkkare bi ak par rapport ak yenn famille yi seen seen njàkkare lan la ginnaaw seen doom yi kaso. njàkkare yeneen famille seen njàkkare daal xam nga mooy lenn rek kenn wóoluwul leen ñoom. kenn wóoluwu leen parce que li ñuy wax ak li ñuy def bokkul loolu rek mooy njàqare famille yi mais famille yi moom am nañ motivation que ne un jour seen doom yëpp dinañ génn ci prison bi d'ailleurs sax moo ñu dajale fii waaw merci Cissé. Maodo Mballo Diop la gars di. lettre bi nga xam ne Omar Blondin Diop ay jamono teglal na ko l'autorité pénitentiaire si atum jamono 1972 euh, le 4 février moom bi nga xam ne da doon subir des consultations nga xam ne amul woon na waral euh, les raisons cela fait euh, bientôt ginnaaw ba mu defee li ni mel lettre bi ay at moom Omar Blondin Diop ñoom famille de politique daal di jël li ni mel daal di koy génne pour fàttali li nga xam ne moom mooy c'est l'histoire des détenus politiques dans le pays l'histoire bi nga xam ne dañuy restreindre li nga xam ne moom mooy les libertés et les droits des des sénégalais donc gis ngeen yaay yu yaay yi jëlaat li nga xam ne moom mooy réaction quelque yaay yi waaye di leen nuyuwaat di leen wax. cant ak ngërëm ñeel na leen yéen ñi nga xam ne yéen ñuy suivre si Sénégal 7 cant a nekk si diaspora bi di ñu di ñu di ñu di ñuy déglu donc euh, jëlal ma mu bàyyi ko après nañ ko jël nañ ko bàyyi rek mu dem après nañ ko jël incha allah rabi ñu bàyyi ko mu daal di euh, waxtaan ak ñi nga xam ne moom euh, la fi fekk ñu ñu jël ñu bàyyi ko mu toog jël ko. même suba on va stopper tout ça même de tendance à des sacrifices donc ndaw ñi également ñu bëri def nañ teew daal di ñëw si li nga xam ne mooy cette grande mobilisation bi nga xam ne euh, collectif des familles de détenus politiques